خلا آدمي خلافة ملكية خلا آدمي خلافة bay ñi nga xam ne ñoom ñoo koy teeru ñu teeru ko kon El Hadj Papa Abdoulaye Mboup dañuy taxawal lépp nag teeru xalif général bu Thiénaba